ak Banjul mën ngeen wax ne euh, lolu guddi lay nek eh, kumpa eh pada dunia kana kumpa kumpa ana baro dunya kana mol kumpa eh ana baro dunya kana mol kumpa eh, ana baro dunya kana mol kumpa We don't need all power. We need Barrow. We don't need all power. We need Barrow. We don't need all power. We need Barrow. waaw ñu ñoo nekk MPP use member soul You know, nekk Halle, you know, Hamene. ne ne Adama Baro, moo nekk suñu président bu nga xam ne leen bëgg a tey leen bëgg a ëllëg bëggul ku nga xam ne dafa yaxaate ne ñun nekkul nga ne ne réew ñun ñëw pour réew yu si am ku nekka am sa place bopp ak sa liggéeyu boppa sonn nañ si wax ji si joo bi. Sir, thank you, sa Yes, we are very happy we so much. Yes, yes we need Adama Barrow for, for, for the changes for the next five years development. For sure, I know he will do that. Thank you very much. Yeah. jërëjëf Babacar Sy Habib Barrow Fans Club number one maa ngi gërëm ñëpp di sant Bafloto Barrow amut morom ku am yërmande la kuñ fonk la te gërëm nañ ko sant nañ Yena, gis noonu euh, birkama Kama euh, fii moom gaa yi di wax yëngu na waaye biir Kama yëngal neen fii waaw am na solo dégg ngeen fans yi ñoom wax neen ñu ne ñoom Adama nañ five years pour development muna am hmm, ñooñu di euh, supporter Adama Barrow dégg ngeen niñ ko waxee gars yi génn si neen gis ngeen biir kaama moto yi bari neen nit ñi tam bari neen fii bétt béttiyeeb ki nga xam ne mooy président Adama Barrow si yoon bi euh, dem bi du gaaw wax naa ne wax naa ne euh, lii sax dina bokk biir Kaama ah, na àggaguñ fa te seen neen fa moto yi bari gis neen fa tam nit yi bari ah, taxaw fa mu mel ni ah, lu am solo la te xam naa ne président ak ñooñom ak waajal neen bis bi soo ko gisee nga xam ne bis bu ñu waajal la parce que oto yi bari neen nit yi tam bari neen wante yëpp dinañ leen ko digtal Eye Africa TV la seen xibaar yi wér te wóor Ioiô Sé, sé. Bana, bana. kamu jangan si dari ke nga xam ne mooy collègue bi moom mooy bu Kama bi ba si biir bi askan begini génne neen tali bi ah, eh, di teeru président Adama Barrow comme ni ma leen ko waxee ci gannaaw ini di waxtaan ah, ak. askan bi dina leen kaay ñoom tey ñu ngi ñibbi si waa Birkama ñoom ñu ne ñu ñoom béy nañ seen waa si li nga xam ne mooy welcome président Adama Barrow bi tey jéem euh, a leen bu a baax si problème bi daal di euh, saxal ak njiiti réew mi. ñu ngi si kaw jëlee ko daal di àgg foo xam ne mooy Farakho bisimilah dañuy ñëw àgg ko West Africa jébal leen ngay indi waa TNC ñu am yaakaar te ñu àgg ko ba àgg ko TNC ñu xam ne kër gi dem daal la jaay ko fekk mobilisation bu am am solo am na yaakaar si ñoom comme ni ko gisee ci loo xam ne mooy ku loolu dëkk bi comme ni ko gisee ci loo xam ne mooy dëkk bi ba léegi askan wi askan wi président Adama Barrow lii yëpp Africa TV indi leen ko si gàllaaj bi ba léegi képp koo xam ne aju nañ ko They am tuna mixer camera. I'm worried about it. di télévision bu nga xam ne dafay jaamu seen soxla yi ngir daf seen bànneex waaye bu leen amal xibaar yi wér te wóor. moo tax lépp event bu nga xam ne xew na si biir réew mi euh, boo ko boo àndee ak Eye Africa TV di nga gis ne euh, di nga am lépp lu nga xam ne xew na fa si anam bu mu gën a baaxee si anam bu mu gën a leere euh, mbokk yi comme ni leen ko waxee rek ñu ngi biir biir kaama ba léegi àggagoon sax si. Mama ye bigi, mama ye bigi. Mama makon da ngai dan sudah. Mama mana? bi loolu nag loo mbir la moo xam ne lii di constitution bi moo ko daganal moo tax di benn wala ñaar war nga génn nag kon loolu système bi xam say soxla te doo dem si nag jublu si soxla yi pour fexe mu tax dara di génn yoon wala gis yoon loolu loolu nag Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Kaama boo génnee Kémbujee ba fi nga xam ne ni mooy um, Johnson boobu noonu ni ñaa ngi fees si kaw tali bi di xaar di teeru ki nga xam ne mooy the uh, president of the Republic of the Gambia président Adama Barrow nu ma leen ko waxee si gannaaw uh, fukki fan ak juróom-ñaar am na ko si biit réew mi muy loo xam ne euh, yoon moo ko santaane si ci si yi réew mi may na bépp njiit njiiti réew bu fi nekk comme ni ma ko waxee euh, benn wala ñaari yoon si at bi nga génn ko daal di dem seeti askan bi xam seen jafe-jafe ñoom it ñi wax la seen jafe-jafe ba balaa nga faa delluwaat beneen euh, at ñu gis ne soxla yooyu askan bi joytu woon. li Fajuna, bari fajuna na moy solol yoon bi ah, ba taxna nak ah, njiti rew yi fi jaar comme niñ ko di doxale depuis Jawara ba ci président Yaya Jammeh ba ci président barom mi tey nga xamne ne nek ci bop rew mi di di Gambia ah, si ñi nga xamne fekke won woon neen bu yaga ñi ngi le won ne ni ni la daan euh président bu nga xamne gennan nga dem to rek region bu nga xamne nga ko rek di nga gis ne Gofana boobu dina ñëw euh, jébbal la beneen Gofana bu nga xam ne ni yaa ngi si suufam wala dugg nga si suufam loolu waral West Coast Region jëli woon président Adama Barrow mu nekk si region nga xam ne nag mooy region yi gën a yaatu si biir réew mi fii dalee e, fi nga xam ne mooy kàllaaj foofu nag la e, gouverneur bu nekk fii si tundi biir Kaama récife ki nga xamné moy président Barrow si loxo gouverneur bu nga xamné mo nek euh di LRR djébal euh, koko, euh moom itam nak depuis fi nga xamné moy kalaaji ba légui mu ngi ak njiti réew mi la nak lañuy continuer di dem ak euh, njiti réew mi euh, légui comme ni mako waxé ñi ngi si fi nga xamné moy johnson Johnson bu mag bu nga xamné ni bi dem na si birkama si maquette bi bi tam daal di continuer dem fu mel ni euh, Farato waaye loolu lu depuis euh, fi nga xam ne mooy euh, Kuloro gis neen askan bi niñ génn see teeru président Barrow kémb yee di seen ñi dugg si biir Kaama gis tam crowd bu nga xam ne bu am solo la bi xaw a jël sax li nga xam ne mooy yoon bi ba moto yi nga xam ne ñoo ànd ak président bi pour ñu jàll xaw na nekk nekkoon na lu jafeeñ waaye noonu li nga xam ne ñooy kaaraange gi dinañ de naxante askan bi ba gis ne wàcc ne li nga xam ne mooy yoon bi su ko defee euh, njiiti réew mi daal di euh, oto yi daal di mun a muuf dem su ko defee comme nu ma leen ko waxee rek euh, fii tam gis neen nit ñu bari ñu ngi taxaw ci Johnson bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee sax walla bu jàkkaarloog Jaliba Johnson wax naa leen ne nit bu nekkee si réew dafa war a def lu baax dama liggéey tam réew mi te doomi réew bu nekk war na mun a euh, wax lan la defal réewam waaye bum wax lan la ma suma defal daf si war a bokk say kàddu tam ngay wax li nga defal sa réew looloo tax am na si ñu am solo si réew mi ñoo xam ne seen Johnson sax euh, defuñ fa li nga xam ne mooy signboard waaye ba ku juddu sax di nga xam ne lii mooy Johnson nangam moo tax ku si mel ni euh, Jaliba Kuyateh am Johnson Jaliba Kuyateh saay mboot amut fa waaye ku juddu biir Kaaba boo màggee di nga ko xam loolu nag dafa am lu rëy lu nga xam ne moom tam représenté na ko taxawee ko si réew mi moo tax yooyu yu am solo la demit demit waaye nag euh, ku def lu rëy am lu rëy moo tax itam boo ñëwee si koñ te liggéeyaloo fa liggéeyu ñu ooyee la Johnson foog nga bind boo teg fa waaye loolu yëpp lu am solo mooy am na boot yi nga xam ne moo gën a am solo mooy nit ki liggéey réewam rawatina muy liggey bu nga xamne tam liggey bu bax la bu set la den ñi ngi ni agsi fi nga xamne moy eh, si men Johnson bu mag bu nga xamne bo joge Farat du ñew bi da ngay continuer dem fi nga xamne moy Mandina Ba benen bi nga continuer dem fi nga xamne moy birka Birkama Market fofu len aksi fekk neen fi mbolo mu taxaw ñoom itam di ngeen ko gis ah, di teru ki nga xamne moy president baro mu melni sax bureau MPP bu nga xamne ni moo ah, Birkama Si fofu le, exactly la nek be so ko caméra bi guéné di nga gis sa hmm, ño xam xamna na ci si bureau bi la ñoo liggéey ñom itam ñing ci kaw di téru ki nga xam moy président Adama Baro fi tam euh, comme ni ma ko waxee fi menen fii mu am solo di téru président Baro Fitam tam essence série bi nek fii bi Main Johnson Brikama Fitam tam gis ngeen askan bi ñu bari sinen ci neen fi teru president Adama baro bu bahaba. ba gis nga len noonu ñoom itam president baram ngeen safante ak askan bi di len fatali rek yene ngi and ak ay Africa TV depuis kàllaa ah fi tam gay mu na wax ne jege den moto president bi diko yene ko gis non mu ngi di nuyu ñom ñep yekati neen sel loxoy yi president fofu moy bureau NPP bu nek bir kama a ko gis non president baro ñu fa def natali president baro NPP bureau bu bir kama location am mooy noonu si boori jaa oyel bi rek gis ngeen ko noonu président bi jamono ji la am na sax ñenn ñi nekk si kaw bi foofu du fi euh, teeru tam ki nga xam ne mooy njiiti mu mel ak capital West Coast region di Brikama ñu wane seen bopp wane ne tam euh, fii mooy capital West Coast moo tax gis nga biñ ko euh, gis ngeen am am solo ñëw taxaw ba léegi tam fii nga génnee li nga xam ne mooy Brikama Dekmel Gambia College euh, foofu leen toll nii si Main Johnson bi comme ma leen ko waxoon si gannaaw bi nga xam ne nii euh, mu ngi opposite ak euh, Johnson Jeliba foofu leen toll nii pour ñu nga xam ne Gambien si nekk tam bitim réew tey seetaan Eye Africa TV dëkki fii si biir kaama lii dina leen ñu dëkkee boor bi dinañ mën a gis sax loo xam ne dina leen fàttali seen réew. Euh, ñi gën ko jox euh, ñi bàyyi ko xel bu baaxa baax fuñ tollu ni comme nu ko mais Johnson biir bi dem euh, Madina Ba ak bu dem si maquette bi fofu len tollu nyi tam ñi fekk fi mbolo mu mu takku mu am solo di xaar president Adama baro si tukki nemeku bu nga xam amalon nako si biit mi si goxi ak gox goxati si rew mi mu si fukki fan ak juróom-ñaar. Eh, motax nak buy ñibi ci askan bi eh, dañ dee faral di génn ci eh, di ko téro mi mbir mo xam nak waxtaan neen ci ak ñu ne ne ñetti nguur yépp ne na la baxo di amé depuis ci ki nga xam moy mooy président Diawara moom itam ni la ko daan doxalee président Diame itam gis nga bu daan ñëw tay sax mom sax safna ci si li nga ñoy APR ci wel commune bi buñ def euh, président Adama baro because tay di nga gëna a anda bi nga xam euh, li di APRC anda na ak président baro bu ko gis neen yenen tiset yi nga xam sax dañ fa day gis natali ki di président jame ak ki di président baro wala ñu gis ay tiset yi nga xam président jame mo fa nekk ak sen kala yu wert yi ak sen bubay ak sen ciola yi nga di nga tay APRC sam li di welcoming bi saf ci sap te du bet askan bi because réeréw len bir ay fan si gannaaw wala ay bisi ay si gannaaw ñi di APRC le colonne wala lëngoo ak NPP euh, bokku nañ xalaat si jamono ji ak gis-gis bi and pour nara a dem li nga xamne moy election euh décembre foot loolu nak motax tay safna saf bu baakha baax ak sinen bir kama deug man li nga xamne moy Gambia College fii tam gis ngeen ko Jaliba Kouyaté mooy fi am euh, soo para ver. Rosa. course daal di jébbal seen li nga xam ne mooy KMC ñoom tam ñu daal di euh, defar gis nga fu mu ñu ngi euh, faaraato euh, askan bi génn si neen bu baax a baax teeru tam seen président Adama Barrow mu ngi noonu si kaw motom bi moom tam dina wante ak askan bi because foo xam ne nii rek nit bari neen fa dina dina génn si moom tam di safante ak askan bi parce que moom moo nit ñi ñëw si kaw yoon bi su ko defee Euh, dafa am solo trop moom itam mu eeg ci kaw li nga xam ne mooy motom bi euh, saafante ak askan bi dontale kenn ku nekk mun la saafante ñoom waaye dina leen tàllal loxo ñoom ñu tàllal ko loxo loolu mbégte lay nekk si ñi nga xam ne ñoo ñëw teeru ki nga xam ne mooy président Adama Barrow mu am solo euh, waa Brikama kenn demul ñi des loolu leen gisagum faaraatu tam ñoom itam def def neen seen wàll ñoom itam léegi nag euh, euh, fu ñoo dem dégmal mooy fi nga xam ne mooy bu sumbaala ñoom itam ñi seet bu àggee bu sumbaala ñoom tam ñi seet ñoom tam naka leen naka leen euh, leen def ak ak seen teeru président Adama Barrow Farato ñoom itam kenn demul bàyyi leen génn si neen bu baax a baax si ko yoon bi Euh, teru ki nga xam moy president président Adama Barrow comme nuñ leen ko waxé West Coast dafa nek euh, region bu yaatu motax tax euh, depuis suba ba légui si biram la nek way dem bi du gaaw gos amna yenen place yi nga xam suñ fa accès as dañoo dem si digg tali bi te si boba auto bi bu président nek sax pour mu dem du yomb ndank ndank la dadi di muuf waaye ñu ngi si digg farato fi ñi nek si juma bi euh, ask mbolo mu takku ñi ngi si kaw yoon bi di teeru président Adama baro légui suma caméra dal di len ko wan ngeen gis ko waxna len leen fépp fu ñu lu fa xew leen len di won ngeen gisal ko sen bop tek ci sen beut ba kenn du len ko wax waaw gis ngeen faaraato faaraato ñoom itam yëngal neen ñoom itam yëngal neen waaw kenn du wax faaratu ñoom itam génnuñ xam naa ne. Mhm. <coughs> ah yow tam tey ñëw nga. waa ñëw nañ seetlu président bi macha allah président moom. waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla rek ma am deuxième mandat ci kàttanu yàlla. jërëjëf kooku tam euh, suñu teeru si président bi la bokk yéen ko dégg moom tam mu ne euh, mi ngay ñaanal président bi deuxième mandat waaw moom loolu la bëgg a. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. kaay waaw jërëjëf Ndiouf na waaw kontaan nañ trop ñun waa Faratu. Ah. welcome waaw kontaan nañ trop. ci yéen waaw kontaan nañ trop jërëjëf. Yo bro nanga nga def yeah alhamdulillah bro kuwol ñin kata ñame woy yo mu sewoleti mm. no kuwol be bida le bro da is fir is alright thank you bro amna solo ah ki gay APRC la ñi ñi wa APRC la deka deka mm. hankay man tay noo gisee affaire he eh rabbil alamin loolu la ñoo ñaan ci yalla mm. yalla sutural ñu. gis nga eh, alliance bi. mo indi jama ci rawmi because ñiri ŋaaroo yi fi nekk si réew mi problème bu rëy lay indi si waa li may si waa réew mi nañu moytu nañu moytu réew mi dafa tuuti réew mi dafa tuuti te benn famille la nañu bàyyi xel jërëjëf jërëjëf jërëjëf naa man Karafa Dabo komba ñoom fele waaw ah, boy yene bloc farado yes eh, bim jam farado ti jamburu busumbala west coast region bela bi yes wol lo wax tay content nañ torop ni wo farado fi dem content torop ngir yaay ki mu ngi ya adama baro te content na fi ni farado si donde na yu wa e baro yo papa baro si donde na yubi wa oye baro baro baro ntode ya rahmatullahi abaraka abaraka masira bala tudo ba bara bara ya yo gentleman jannamu faratoto jannamu komo sawte mbenda mo ɓola ah, gis ngeen farato mu leen wax almost yoon bi gars yi tëj ko mu romba problème la sori alma la so wakara jamu min dodi jamu bu farato farato a done deal. billahi maa la ko wax it's a done deal. it's done and dusted. jeex na ku la ko mën a war a man maa la wax lii. December four ma ne lii is over. wakkat yi nañ wax. ñun dañoo sànni kàlla abonte la abonte la abonte la abonte la abonte la Yeah. yaa kontaan bi. bii kontaan xanaa président buy ñëw ni muy suñ président Baro. ñu kontaan si moom bég ni bésu tey bi. tey kay ñu ngi waaw waaw waaw kontaan nañ. ah man kay tey du kontaan bég bu kont kontaan kuantan weesu kontaan tey ma def ya teel mooy kontaan naa tey ñaan yàlla wiiw ca kanam rek ca kanam a kanam a kanam ca kanam rek mbaani ya? moo bantale ndiya moo bantale nga doo ko ke ya, ha mo maman si folo bar sa ndol nga lol ko ndol ba windale asanere inshallah ya. yes day era ko dégg fans president Barrow yi nee na combat bi jeex na aha yamo ah. abandale fereng yemune fo ah yamo bandal abandale fereng ko dise mo man si folo eh dise mo go go sidal nde nde o si dal. Ah. ah so december 50 dal abanda ni yewi moy barolam barolam ah abaraka abaraka <laughs> nde disa mona sira ninga mo erat bororo bororo ide ye sanji soro nde 13 years 13 <laughs> Allah mo ban. Dia mo ban. Dia mo ban na baaga baaga. Dia mo ban. Dia mo ban. Kontani talam kontani talam kontani talam ni baru. Mero. Mais ñu mero APRC mero le. Mu APRC le ti. Andi membaro andi membaro support la le. Ah. Faye win dorom fase si. Ah. Ha. Ha. Ni ala sonta. Kadimare. Bueno, lo te xanaa waaye man fu ma nekk nii ah. maa ngi over kontaan man. Thank you. mbakay kon ñu leen ko waxee woon ba léegi ñu ngi ah, fii di faaraatoo génne fi sax xaw na jafe bu baax a baax a baax ndax nit ñi bari neen si kaw tali bi ba mën nañ wax ne sax yoon bi léegi ah, daanaka won wee la loolu ci digg bi la rek la li nga xam ne moto yi mën a jaar jamono yi ñu toll ndéeg ah, oto yi ak beri gue nga xam beri nit ñi bëri nañ ko si kaw yoon bi li di moto president bi sax pour mu rombo nit ñi lolu sax jafé na yoon bi li fi dess légui léegi benn moto rek mo mëna jaar ci digg bi so lolu waral euh, dem bi di gaw kon mu melni tam farato wax deug yalla ñoom tam genn bu baaxa baaxa baax euh, ki nga xamné moy sen president Adama baro yena ko gisal sen gis ngeen ko noonu président baa noonu si kaw motoom di di wax ak askan bi eh, laaj na askan bi ñu bari ñu wax seen gis-gis wax ne ne li nga xam ne mooy élection bi jeex na combat bi jeex na dixième fort soo déggee view si ñi nga xam ne ñoo wax di support Adama Bara nee soo déggee view rek dixième ba fort kooku nga xam ne mooy Adama Barrow soo nee combat bi jeex na because même liñ gis Euh, moo a wane ne rek combat bi moom euh, jeex na loolu nag si suñ kanam la nekk te si kanam moom rawul ay bët December fourth euh, fileeg loolu des na li jëm si ñaar weer waaye buñ si àggee ak jàmm di leen xam kan Gambien si tànn mu nekk seen président looloo waral nag jamono yi luusa amagut ñëpp wii na leen because ku nekk rek Euh, soo ko laajee mun la December foot moom mooy wiin kon mu mel ni léegi euh, euh, candidats yi nga xam ne ñëpp fay ñëw ñoom ñëpp ay winners lañ ñoom ñëpp winner leen kenn nekkagul ko xam ne moo ñàkkali di élection bi waaye li si kanam raw li ay bët December foot Gambien si dinañ ko déggal kan la ñoo teg si seen bopp réew ngir mu jiite leen juróomi at dox si seen soxla si li nga xam ne loolu leen ko buggee Euh, tey nag ñii ñoo aye am na ñu aye woon démb ne ñoom euh, affaire bi pare nañ ci te itam waa NPP ñoo aye euh, di nga xam ne ni seen président yi réew mi génnoon nemmeeku ji askan bi ba tey muy ñibbisi waaye militants yi ak fans ak ñi nga xam ne supporter ñii di président Adama Barrow ak NPP bëri nañ ci kaw yoon bi taxaw nañ si yoon bi te ñoom wax neen ne incha allah dixième ba foot ñoom. Euh, élection bi seen bés la comme nu ko ñeneen waxee barki démb ba ne euh, coow li jeex na buñ si àggee rek euh, dinañ xam ne mooy loolu waaye nag noonu la lu ñëpp di ut kenn du wax ne moom du ko am parce que kuy uti niñ ko waxee rek fokk rek mu am ak yaakaar waaye li si des mu si loxo gambien si ñoom ñooy decide kan moo leen di nekk seen bopp réew si yeneen juróomi at yi nga xam ne dëkk leen ko ñu ngi faaraato gis ngeen dem bi Euh, tuuti tuuti la dem ndax yoon bi euh, xataayam tuuti la moto bi di muuf ndax yoon bi xataayam euh, su ko defee moto yaa ngi paak si kaw yoon bi nit ñi tam ñu ngi bëri si kaw yoon bi ba tax na gis nga tam fu mu nekk nii diggante président Adama Barrow ak yoon bi motay nit ñi den fa fess ba nga xam ni motom bi sax euh, pour mu romba problème la motax euh, kenn xamul xamagul right now euh, ban time sax len fogné ne la ñoo àgg fi nga xam moy moy bañu so mu nekk lu nga ni euh té te gum fi nga xam ne la Busumbala gum fi nga xam ni moy euh fi nga xam moy lamine aga gum fi nga xam moy Abuko nga xam ne foofu la West Coast di jé jébbale lengay waa KMC KMC itam jël ko fa ñu dem Tabokoto dem Johnson i kaw dem Bobo Zone from there ñu dem Talinding then from Talinding Chestertown from Chestertown Supaba Johnson dinañ fa fekk ay nit West Pine noonu la ba Banjul mu mel ni des leen lu baree bëree bëri te am nañ yaakaar ne luñ fekk fii dinañ fekk. lu ëpp loolu si yoon yi parce que nag tey bis bu rëy bis la boo xam ne ñii di NPP waajal neen ko soo gisee lu mu demee ni nga xam ne waajal neen ko yàgg neen koy togg te yàkk neen ko tey te li ñu gisaale ci fii ci Farato birkama nekk na lu nga xam ne lu am am solo la nekk na lu nga xam ne lu ñu waajal la lu ñu waajal rek mooy mel nii te eh, wane na ko bu baax a baax eh, askan bi génn si wala mun leen wax ne lii di militaine wala fancy wala supporter li nga xamne moy president bara ak NPP gene ci nen ci yoon bi bu baakha baax ba euh, dégg nga sax ñenn ci ci askan bi comme niñ ko waxe so wax ji jeex na waxtaante nañ ak nga xamne ni ñi ngi sol ay yére APRC di support ki nga xamne moy president baro Barrow leen biir tan yi dama ne ñoom mburoog soow leen te gaay ci pour neen ko li ci dess si ñoom ñëpp xam ne li nga xamne ni lu lu am am solo so tay tey euh, yoon bi biisi na yoon bi xat na xam naa ne nag si kanam tuuti euh, yoon bi dinañ génn li nga xam ne mooy farata waaye itam ñu ngi expect ba léegi ne rek um, euh, farat euh, busu mbaala tam lu mel ni lañ faa fekk gis nga président Barrow dafa mel ni sax ekkati na ay loxoom besoon na parce que lii tam dafa métti nag lii dafa métti gis nga ko noonu motoom diggante motoom ak li nga xam ne mooy convoy bi dama ne euh, nit ñi dañ nekk di dox te loolu waa faaraatu yi la mu mel ni euh, moto yi mënuñoo dem bu baax tuuti tuuti la moto yi di dem loolu nekk na lu nga xam ne ni lu lu ama am solo la si ñi nga xam ne ñoom ñoo doon mobiliser bis bi ñoo doon dox li fokk ñoo nit ñu wane seen kàttan wane seen liggéey wan ko kii di président bi wan ko ne mobiliser nañ nit ñi te nit ñi génne si leen so dañoo bëgg a ñoom tam seen liggéey daal di feeñ loolu nag euh, dina amal solo ki nga xam ne mooy euh, njiiti réew mi ak ci jamono ji nii leen toll di waajal dixième ba foot nga xam ne coow li du lenn lu dul lii nga xam ne mooy dixième ba foot moom la réew mi yëpp di waajal moom la parti politique si yëpp euh, di waajal. mu nekk lu nga xam na ni lu am solo la ku si nekk daal yaa ngi bàkk sa mbër di kañ sa mbër di oo say mbooloo pour wan ko nit ñi wane ne su kerek bis ba yow la loolu nag ku ne am na si raayit wax dëgg yàlla looloo taxit ku ne mu ngi koy def loolu taxit nag ku ne nangu nen la ko te loolu nekk na lu am solo ndax réew la mbir réew mii di Gambie ñu nekk léegi réew la moo xam ne démocratie moo fi nekk parti politique bu nekk dinga nga defee sa rallye ak sa meeting sa ci sa sago bu baax a baax so loolu nekk na lu nga xam ne nii lu ama am solo la euh, ba léegi ñu ngi faaraato di am yaakaar ne si kanam tuuti dinañ àgga fi nga xam ne mooy euh, bu sumbaala digtal leen tam lii nga xam ne moo fi xew incha allah la wane seen bopp wane na bopp kenn demul ñu des ñoom tam mu mel ni euh, léegi tey ñu jeexal nag nga xam ne mooy Farato. gis ngeen ba léegi waa Faarato ñu ngi téye président Barrow nekk ci kanam motom ba tax na pour ñu génn Faarato nekk na lu nga xam ne ni yombut ci ci oto yi pour gis nit ñi ñoo taxaw ci kanam oto yi moo tax pour moto yi ñu muus ñun dafa xaw a nekk su ko defee euh, ba léegi ñu ngi fa euh, ñu ngi génn si farato dégmal bisu mbaala bisu mbaala tam mu mel ni mu mel ni ñu fekk faaraatoo moo nekk bisu mbaala euh, ñu ñaa ngi si kaw tali bi bisu mbaala tam ñu ko gis noonu mu mel ni lu ñu gis faaraatoo loolu leen fay gis ñu ngi duggal si bisu mbaala ko sine fi nga xam ne mooy bu sumbaala léegi nag euh, ñëppal si kaw tali bi di daw si kaw tali bi yéen ko gisal seen bopp mu mel ni lu waral jafe-jafe pour dem bi mooy euh, nu nit ñi mel si kaw tali bi parce que waa faaratu yi dafa mel ni sax ñoom itam topp nañ li nga xam ne mooy président bi bay bu sumbaala euh, léeg may seen fële si ñu gis ci busu mbal ne dina melni ni busu mbal ñew itam gut farato dem dem bàyyi leen waral ñoom genn ci len bu baaxa baaxa baax ci ko talibi dina tali bi baraw dégg bu busu mom tam dafa mel ni foofu itam président bi lu ko wax faaraatu def dinañ ko ko def. bu Simbala jadi yéen ngi ànd ak ke TV depuis lagi. ji naaw ya in bu Simbala fii itam ñu bëri génn si Adama Barrow be bloc yon bi oh, pour motom bi rombo dina xaw dina xaw